jazakum allahu xayran cheikhana jazakum allahu xayra cheikh bi kii nee na daal jamono yii moom dafa dañoo gis lu lëmbee réew mi lool mooy ay xale yu toll ci seen digg doole euh, rekk di mbëkk ni dañuy dem Europe pour daal di seen i doole ñii di dee ñii di fay jëlee yeneeni mbir mu ni loolu ban taxawaay nga ci euh, jox ban conseil nga ciy jox euh, askan wi alhamdulilah xale yooyu di mbëkk day di dem ca réewi tugal ya ngir di wuti lu ñuy liggéey euh, lañ wax moo di mbir la moo xam ne mu rëy la mu grave la mu aaja saafara la itam responsabilité ba it nag daa tegu ci ay loos yu bari loosu état li tegu ci kawam moo di askan wi wareef na leen a yombalal ñu jàng yombalal leen ñu forme leen bañ am ay métier su ko defee jàppale leen yombalal leen ba métier yomb ci ñoom ñu am fu ñu waaye lii kat nga xam ne yeneen i état ñoo yombalal seenu nit bañ am fu ñu liggéeyee ñoom ba ñuy liggéey ba mu des ba soxla yeneen i nit ñii di bàbbiku di fi bàyyi seenum réew di dem di liggéeyi réewum jàmbur loolu gàcce la ci état sun réewi Afrique yépp nag daanaka sooy boo nga ne gàcce googu yi daj na leen waaye waajur yi it am na lu tege ci seenu loos ndax lu ci bari bari lu ci gën a bari gone yi lii tax mënatuñoo toog mooy ay kàddu yu ñu leen di sànni yoo xam ne yu ñagas la dangay nekk ci ab koñ gis gone goo xam ne dafa bàbbiku dem yàlla dogal mu mucc ba àgg tabax kër ci sa wet yóbbu yaayam màkka su ko defee gone gi nga xam ne mooy moroomam jum doon foondool ci koñ bi bañ bokk màgg guddeeg bëccëg yaayam wala baayam ña ngi koy sànni ay kàddu gis nga diw day moom dem na ba def nangam ak nangam ak nangam yow yaa ngi ne yaa nii rek bis bu nekk nga toog di ñaan loo attaaya kàddu yooyu lu metti ci xol la te fekk ki nga koy waxal ñàkk pexe moo ko tax a toog bis bu gisee ku ne ko kaay ñu dem dajaleel nangam ma yóbbu la lay ne ci boppam mooy diw mii ci sunu wet su ma demee damay mel ne moom te xalaatul ne mennum diw moom yi dem ba mujj boo demee téeméer yam àndaloon yëpp des nañ ci àll ba faatu nañ kenn mucc daal di nekk fitna ci ñi boolem ña nga xam ne ñoo nekkoon ak maasam kon parents yooyu di yedd seen doom yi di dal ci seen kaw di leen xas am nañ ci responsabilité waaye it waroom alal yi am nañ ci responsabilité ndaxkat kat mboolem ñi nga xam ne ñoo fiy jóge doon ay gone di dem ca réewi tubaab yooyee di liggéey lu ëpp ci ñoom boo demee ci ay usine lañ nekk ak ay tool yoo xam ne boo fa demee du ab gouvernement moo ko ubbi waaye ay woroomi alal ñoo ko ubbi mu nekk ay entreprise ñu jël ay nit yóbbu leen foofa di leen liggéeyloo moo xam ca tool ya moo xam ca usine yi kon waroom alal yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di denc seeni alal ñii di ko yóbbu bitim réew di ko fa denc ñii di liggéeye liggéey yoo xam ne nam gën a néewee ay employé rek moo leen ci gënal ñooña jaadu nañu jàngal leen bañ xam nan lañuy liggéeyee am réew ndax liggéey am réew kët du mooy liggéeyal sa bopp ba am alal yow yaat sa njaboot waaye mooy fexe ba liggéey boobu yi saawaan ci aw askan ba ñeneen mën caa tedde boo demee ci réew yi yeewu ya la ñuy tiitaroo buñ toogee mooy man di sama entreprise léegi téeméer a ngi ciy liggéey kenn la man de am naa junni kenn la man nag fukki junni ñooy liggéey ci sama entreprise noonu la ñuy damoo ndax dañuy yëg ne liggéeyalatuñ seen bopp waaye ñu ngi liggéeyal seenum réew su ko defee lu mel noonu nag day jaadu it état yi itam dugalaat nag foofu loxoom ndax woroom alal yi léeg-léeg am ci ñu am jom bëgg a ubbi lu yaatu nit ñi mën ci liggéey moo xam ci suuf yàlla moo xam kayit yi ñuy toppatoo la wala yu mel noonu yooyu ñu di ko lijjanti mu jafe lool ñu di ci biir diir bu yàgg te amaana ñoom lañ miinoon te maîtriser ko mooy weneen façon commerce waaye bëgg nañoo participer ci lii waaye kenn yombalalu leen ko su ko defee loolu dañu mujj rek delluwaat lañ nekkoon fi saa si nga gis keneen ku jóge bitim réew ñëw fëgg bunt bu mel ne boobee mu doon fëgg kayit ya muy lijjanti mu lijjanti ko ci ñetti fan daal di jël suuf soo xam ne su dul jeex la ñu jox ko mu daal di tàmbali di ko exploité kon nag lu mel noonu foofu it état war na fee dugalaat loxoom. kon daal ala kulli xaal suñu réew mi moom fi mu nekk nii suñu réew yii laay wax sax waaye suñu réew mii nag moonu gën a jege eh, tollu na ci ñi war koo li wala delluwaat nag ci ndaw ñi jàngal leen former leen waroom alal yi ñu yombalal leen ñu ubbi ay entreprise te soññi leen ci fu mel ne Maroc tey. boo yore entreprise fas yéene ubbi ay tool di bay lépp loo xam ne matériel bu ci jëm la cinquante pour cent dañ la koy subventionné loo waroon a jënd junni lu ne juróomi téeméer nga koy jënd loo waroon a jënde fukk lu ne juróom nga koy jënde te it la nga soxla ci suuf dañ la koy jox kon nag lu mel noonu euh, bërëb la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la bu mat a góorgóorlu kon daal mbir mi saafara ko moom nekkul rekk ci tere ko nekkul ci jël naa ay police wala jël naa ay gaal yu nekk ci géej gi kuy bëgg dem ñi jàppal delloosi waat ki nga jàpp delloosi ko tey jii mi jàppal na mi ngi waajaat saa bu mënee dem day dem laajoon nañ fi gannaaw ndax ñooñu dañuy xaru wala déet ñu ne déedéet xaruwuñ ñooñu dañoo bëgg a dund kenn du leen soññi ca loola ndax la ñuy def baaxut waaye nag dañoo bëgg a dund kon su leen faatu fekkee ci yoon wet nañ xam ne ku doon dundi la fa faatu ca yoon wa yaraange jëy tege ci seen bopp it yëmut ñoom ñëpp ci am yaraange état baa nga ca biir waroom alal yaa nga ca biir seen parents yaa nga ca biir naam